leen sargal tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne rek yéen safoo di ñu seetaan mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooreeti rek wopp ba coronavirus tey ci alxames bi ci 2860 tests yi nga xam ne rek réalisé nañ ko 393 ñoo ci jota positif ci 393 yooyu nag ñu ci am 89 cas contact 304 cas communautaire 12 décès ak 246 yoo xam ne rek faj nañ leen ba ñu wër ba tey rek ñuy desandi ci wàllum coronavirus fii nag di groupe euh, Sonam assurance la ñu nemmeek foofu rek moo di feebar ba dafa bari lool lu mot nag ñaar fukki nit rek dañoo am li nga xam ne rek moo di virus bi li coow li nag moo di ki nga xam ne rek moo jiite boobu lépp waat rek di mëma Mamadou Diop moom nag la bëgg rek mooy. ñooy euh, liggéey ci boobule boîte euh, daal di del si rek euh, dooreel li nga xam ne rek moo di liggéey bi ba ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk rek loolu la ñuy ñaxtu fi mu toll nii ndax dañoo jàpp ne rek seen congé jeexagul rek ba bañ mën a del si ci boobule waat rek ngir wéyal liggéey ba ñu àddu rek euh, wax ci mbirum Ousmane Sonko ginnaaw nag buñ ko accusé rek li nga xam ne moo di viol ba ay affrontement amoon na fële ca cité kër góor gi ca këram daal dina seeti rek ñi nga xam ne ñoo nekkoon blessé ya amoon na ca boobule affrontement fële ca hôpital Idriss Pouye ex CTO bu Grand Yoff ci noonu rek ki nga xam ne moo di Ousmane sonku nag daal dina apporter rek li nga xam ne moo di soutien wa ba tey rek ñuy àddu ci mbirum Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñoo di député yi rek dinañ amal ab ndaje tey fële ci assemblée nationale ngir waxtaanee rek li nga xam ne nag moo di malaanu kiiraay bi nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko am na ko dinañ ko dindi waaw wala déed dinañ ko dinañ ci xam dara nege tey waaye tamit entreprise yi nga xam ne rek dañoo jege boobule assemblée rek dañoo tëji seeni buntu tey bañ a liggéey ndaxte rek di bañ affrontement bu amee ñu yàqalee